kun war a jël nga ndax ku war a wax nga ndax nekk gi nga nekk ci wetu sëñ sëñ Mouhamadul Mountakha dafa nekk eh, lu murit yëpp di bége la sa taxawaay ci wetam ak jàppale bi nga koy jàppale ci ci yu bari eh, ci fulku beeg ci yeneen i eh, détails yoo xam ne ni ñun xam nañ ci dara ci biir ak ci biti tey yi ñu gis la fii te moom leer nañu saaboo boo say tànk rek pëste fa yëkkati. Mm-hmm. yan kàddu ngay sànni ci li ñu wax. waaw kay jërëjëf sëñ Samb ñu leen di sant bu baax ci taxaway bi ak tassare gi nga xam yi it ñor na leen ci tassare lu baax fu ngeen tollu diko ko tunglu ak tassare eh, fi na dëkk nag tey di kër Soxna May Soxna May Jëmmil di doomi sëñ cheikh moom sëñ Modou Faty Khary waaye nag suñ lépp yor ko muy sëñ Mat Diop suñ lépp yor ko ndax mën nañoo wax ne eh, ñoo jóge woon fii dem ndakaaru ànd ak sëñ Galas ngir baayam sëñ Mansoor Jamil la ko bàyyale kon noo jóge woon fii dem eh, kon yaakaar naa ne am na nu jegeen ci yëf yi bañ bañ bañ bañ ko mayee foofu it eh, noo demaat kër ndeyam jële ko fa andi ko kër sëñ Mat Jóob waaye li nu boole ak ñoom dëgg mooy pastif ndax soxna May eh, jigéen la waaye ku am pastif eh, ci ci doxalinam ba nit ko amul pastif sax doo jax doo jaxasoo ko ndax sëñ Modou mi eh, ku ne xam na ni ko yàlla binde boroom pastif dëgg rek mooy mën a ànd ak moom ndax moom li muy bànneexoo mooy pastif buñ ne pastif nag ak njullite nga ca ak lislaam nga ca taalibe lépp a nga ca biir ndax pastif mu yóbbaale yooyu yëpp wax dëgg bi ni ñëw sax moom daa umra ji woon soxna May lan ñëwoon ndax ci bëccëg lañ ne soxna jabaara da ngay dem yendu ji fa nekkal fa muy doom Sëñ Muntaxa ji ñu yore su ko defee fu ñu jullee timis ñu it ñëw far biñ ñëwee ñu fekkaale sëñ Modou moom it xam naa nam jóge aéroport la continuer dikk soxna may nag mom yaakar na ñepp degg nañ ay waxam gis nañ ay defum ndax señ Modou mi bari nañu ko jitu ci señ bi waaye amna place bo ci señ bi du alal mok ko may du ak yag mok ko may Pastef mok ko may ndax señ bi yaakar na ne ragne na ko ragne go xamantene ba ba amee ay fan yu ko gisul sax da koy laaj te loolu yitte ma ndax sëñ Muntaxa kenn ku ne sa yitte la lay jàppee ñoo yem fi moom waaye nag kenn ku ci ne ji nga am ci moom noonu nga ko téye la lay jàppee waat yitte jooju nag da ko jëflante diggam ak sëñ bi ndax weeru koor bi bu dana am fan yu bari yo xam ne dana togg ay ndogu di ko andi ci señ bi te bokkut ak addiyaam ji muy joxe mu jëm ci walu ndogu di ko jox señ bi bala ñu um soxna may mi yakarna barki demb rek la baye togg kon yóbbu kër señ bi ngir magal gi waye fan yi mi ngi won Touba ngon gu ne mu togg ay ndogu yu mel na war a mel teg ko ci loxol sëñ bi euh, liggéey boobu ndax sëñ Modou it euh, li tax mu war a sant loo bëgg-bëgg doon jàmbaar balaa sag doxa yomb yàlla dimbali la nga ànd ak koo bokkal bëgg-bëgg la yàlla dimbalee nga am koo bokkal bëgg-bëgg ca la seenu dox di gën a yomb dafa mel ne sëñ Modou lim bëgg ci sëñ bi soxna ma it da ko bëgg ci sëñ bi muy ñaar ñoo xamante ne kon ñoo bokk pas-pas bokk bëgg bëgg bokk luñ jublu ñooñu seenu dox da yomb xanaa ñu ñaan rek ci barkeb sëriñ bi eh, suñu borom guddal seeni fan ndax dañu wax na ndaw boo koy ñaanal da ko ñaanal fan bu gudd nun nag wax dëgg yàlla eh, liñ siq ak nun ci lu baax te xam nañ ne léppit jëmmi sëñ bi rek moo tax ñu seq koog noonu loolu moom dañ leen di bàyyi ak yàlla rek ah, sun wëlëre wii nga xamante ne ma nga jógee ba Bargny dana présenté lim doon lu bari la ci Bargny ah, ndax Moodu la yàlla defal. sëñ Modou la yàlla defal fa mu jaar fu ne di fa liggéey bu fa jógee mën nañoo wax ne ña fa gën dagg topp ko ndax nekkoon na maatam kera ba mu tàggoo maatam gépp dañ ne du ci dal te la gën a neex mooy ñene du ci dal mooy ñem daan bokkal jàkka ji di jullee nga xam ne kon ñooñu diinee rek lañ ko téye Euh, sëñ bi itam tey jii la ma sa ñëw Touba te 42 la judd xam kon euh, moom ci boppam euh, bokk na ci nit ñi nga xamante ne dañuy xemmeemloo nit ñi sëñ bi te lay am solo nag ci ab bi mu fexe ba fu mu nekk fu ne ña fa nekk di xemmeem sëñ bi. lan la ñuy xemmeem sëñ bi mooy li sëñ bi nekkoon ku ci nekk ku ne ña nga nekkal xemmeem sëñ bi ku nekk fi béréb te ña nga nekkal xemmeemuñ sëñ bi rek xamal na yow yaa ma tut ndax nekki woo la sëñ bi nekke woon ndax sëñ moom mboolem koo xamante nekk nga ak moom te nekk li sëñ bi nekkoon kooka dana la xemmeem dana xemmeem sëñ bi moom nag yàlla dimbali na ko ci loolu. nga xam ne kon mën nañoo wax ne yaay jaraafi Bargny ma ne. man maay jaraafe Bargny. waaw waaw man maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Serigne Hadim mi nekk suma ndejoor maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant borom xol bu rafet yàlla du ko toroxal mukk ci àddina man mënumaa jàng jàngkat yi ñoo ko wax ñu ne borom xol bu rafet yàlla du ko toroxal te ku la gën ndey moo la man man may jaraafi Bargny di chef coutume Bargny ndombi tank yi gëna kawé ci réew mi amna ci président de la république moo ma nommé chef coutume par décret bont nak man ci suma lu bop doxewu ma ko waxewu ma ko Mamadou Diop mii moo ma indi Touba amna ñu ñu bare ñu ma xam ci serigne yi mais mosuma tek suma tank Touba ma ngi doon tek suma tank mbacké fofu la daan yem dem momadou dafa nek nit ku baax nek nit ku yiw nek nit ku labir te Serigne Touba rek lay liggéey lo wax mu ne barke serigne Touba waaw mom mi motax tax ma ne di nga am lu ne parce que nit ku baax nga man momadou man ma man wane joge barni be Touba ñew dugg Touba te 42 la jiddu je suis né le 20 novembre 1942 est-ce que yama mak ah yaa ma bon maa la mag. waaw mosuma teg suma tànk Touba maa ngi fi door teg suma tànk Touba Mbàkke rek laa daan yem. bi ma ko waxee. gis nañ ne laylatul xadar gi teew loolu moom sëñ bi dëgg la. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi sant yàlla bu baax mi ñu mayee ñu fekkewaat ñaan yàlla teewe ko ay déwén yu bari bari te yàgg ko fee fekk ndax wax dëgg yàlla kontaan nañ ci moom loolu moo firndeel lii nee na sori na waaye nee naa ko yow foo nekk ñu fekk la fa xanaa di ñaan yàlla yàgg la fee fekk rek dund ba sa njaboot di ko def barke Sëriñ Tuubaa sama diggante moom moom wax dëgg yàlla la xajul ci rajo bi <laughs> <laughs> xajul ci télé bi moom xanaa di ñaan yàlla sàmm ko rek bu baax a baax barke Sëriñ Tuubaa di gërëm boroom këram bu baax mom nit ku bax la moo ñu booleeg moom waaye rëccuwuñ ko de rëccuwuñ xamé bi wax deug yàlla. waaw wax dëgg yàlla salaamaaleykum wa rahmatulah ñu di nuyu bu baax di leen ah, di rek di ñaan kilifa gi nga xam ne moo tàmbali bis bi di ko suñu borom ko di ñaanal it sëtam bii di sonna may doom doomu sëriñ seex bi nga xam ni moom it lu baax rek moo ko ñor ci lu baax rek lay yëngu te ñu bari ku ko déggalit daal di nga di nga tege ci yoon bi xale la waaye deful yëfi xale moo tax euh, wax dëgg yàlla bi ñu xamanteeg moom recc wuñ ko te sëñ Jóob di borom këram lu baax rek la bëgg kon nag yàllaa leen boole yàlla gën a dëgëral def ci njaboot bi barke euh, ba yéene yi ñu yéene liggéeyal lislaam yéene koo liggéeyal Serigne Touba yëpp suñu borom àggale ko mun nag borom baax la suñu rakk la ku baax la bëgg na lu baax mi ngi koy jëfe mi ngi koy waxee mun nag dañ koy ñaanal rek suñu borom yàggal taxawaayam te dëgëral ko mbàkk seen xàddim te ànd bi yàgg ak magam ak rakkam yëpp nekk Serigne Touba jërëjëf kontaan nañ lool na <laughs> yàlla nañ xam naa li ñu dajale fii ci kër Soxna May gi muy guddi gu màgg gi nga xam ne mooy guddi laylatul xadar te suñu borom def ci tawféex mu mel ne tey réew mépp ñoo bokk genn guddi gi muy guddi laylatul xadar ku ne xam sëñ Modou Fati Xarit li nga xam ne daan na ko toggoo ci laylatul xadr ndax yaakaar naa ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoom rek ñoom ñoo ñoo gënoon siiw ci dundal ko fii ci Touba ci diir bu yàgg ah, soxna May kon mu mel ne eh, tànki maamam ci la aw ndax ku ne gis na sëñ Seex coono bi mu daan toggoo ci leelatu xadar fii yàlla dogal sax mu fi bàyyi koo daaw mooy doon leelatu xadar nga xam ñaan ba dañ koo far def mu ci leelatu xadar soxna Mayit loolee la bàyyi woon xel ba tax ba yu fi jàllee rek kon ne xam na ne kër gi noppiwut waaye mu façon yéene rek euh, dundal guddi gi na ko ay maamam doon dundale na ko waajuram doon dundale moo tax mu toggoo ci coono bu ne ngir fexe ba eh, daara ji mel ni mu mel waaye yaakaar naa ne eh, yëngu bu mel nii rek eh, nga defee ko ci fitna te lépp bëgg a dundal guddi leelatu xadar loolu rek tuyaabam kenn xamut mu toll loolu rek la mooy kàddu yoo xamante ne bëggoon nañ ko ci sànni jërëjëf jërëjëf jërëjëf <laughs> waaw mun doon a ñàkk